man la madame Diouf Ndeye Naam euh, nekk directrice alphabétisation langue nationale yore éducation de base des jeunes et des adultes. waa ndaje si dafa am solo parce que da nga ko wax langue maternelle maanaam suñu làkk yi nga xam ne ñoom ñooy base culture bi parce que bu ñu jëlee culture ne moom garab la racines yi ñooy langue yi. donc buñ ñu wax développement bëgg a wax émergence te jëluñ en compte en charge suñu langue yi kon bu yeboo rek ñu baax. te loolu président de la république xam na ko wax naa ko léegi ci saal bi ministre de l' éducation nationale gis ngeen bi ñuy def ki nu ma sonale parce que état bi dafa taxaw actuellement nag pour jox làkk yooyu gëddam xam nga lu tax dañ ne lépp lu ñu def fi mu nekk nii nañ ko teg ci delloo si suñu valeurs yi te xam ngeen ne mënuñu delloo si suñu valeur te sukkandewuñu si suñu làkk yi muy benn ñaar suñu làkk yi dafa am solo parce que euh, kii la euh, facteur de paix la ak de cohésion sociale ndax boo jëlee fi nga xam ne tey moom la ñu amoon problème muy Casamance ña koy régler presque diggante làkk ak làkk la muy diggante séeréer ak joolaay ak ñeneen ñuy intervenir ci suuf ba nga xam ne yëpp fi mu ne dal na nga dem ci frontière yi dem Gambie da ngay gis ay sénégalais yoo xam ne sax teguñ sax seen bopp sénégalais Gambien lañ ko teg ñu làkk bi dugalante bi moo ko waral kon loolu ku wax ne tey da ngay def lenn pour émerger bàyyi làkk yi defe naa ne defe naa doo dem loolu ñëpp ñëpp kii nañ si li ci des kay mooy euh, làkk yooyu ñi ko yor ñu ñëw laa may dans la main gunge état bi ci loolu nga xam ne moom la teg ndax andi nañ benn modèle pour ñun ñëpp ñu tënku ci pour mun a dem waaw loolu yàgg nañ ko def yàgg nañ ko def ndax am nañ ci expérience bu bëri ndax ay organisation de la société civile yu fi nekk ñoom lañ doon financer di leen accompagner ñu liggéey en euh, synergie pour ñu di ko def mun naa ci lim arrêt mun naa ci lim atlas ba nga xam ne même élémentaire bi ñoom sax ñu ngi dugal nañ làkk yi boo jëlee cinq langues li ñuy wax càngin mooy séeréer yi nekk région de Thiès ñoom réussir nañ ko foofu lañ defoon journée internationale de la langue maternelle en 2018 waaw léegi nag Euh, éducation comme réforme de l'UOMA yi dafa ñëw mu nekk léegi euh, par programme dañu ñëw andi EBJA ne nag tey nañ nañ gën a renforcer langue yi euh, taxaw nag andi modèle modèle bi sànq defe naa ne partagé nañ ko fii la Moheb chantier la boo xam ne ñëpp lañ ci woo gis nga journée bi tey dafa am solo si ñun ñu defe ko nii pour toutes les collectivités ñëw toutes les collectivités linguistiques ñëpp a fi nekk tey les 22 langues codifiées ñu ngi fi même gis naa kii les la langue des signes gis ngeen ko mu ngi fi te boobu lañ jublu pour codifier ko ku yàgg mooy vingt moo nar a nekk vingt troisième bi après la ca des nee nañ ay variantes ñu ngi xool pour def ko rapidement mais li nga xam ne moom moo téye woon affaire bi wax nañ ko ci biir salle bi mooy le document de politique linguistique parce que nañ ko bëggoon defee dama leen ne du a demee noonu la politique nationale de l'État donc du nekk loo xam ne dañ koy nekk rek ci biir linguiste biir intellectuel déedéet loo xam ne dañ koy ubbeeku dem ci collectivité locale yi parce que président de la république ñëpp xam nañ dafa am vision mu tudd plan Sénégal émergent loolu ñëpp xam nañ ko plan Sénégal émergent boobu sukkandiku ci ay mbir ñu am lettre de politique sectorielle am le paquet ci éducation nationale def lu am solo donc loolu sixième décision bi mu wax ne nañu éradiquer analphabétisme promouvoir suñu langue état daal mu ngi fi moo tax ma ne ñii nañ ñëw gunge état parce que état volonté baa ngi fi détermination man xam naa ci dara parce que man mi ko yor ma sonal kon na gis nga loolu noonu état yore nekk ci di ko liggéey ñaari préalable moo am mun naa wax sa ñett benn bi mooy document de politique linguistique bi dama ko jël dugal ko ci budget bi bu ñuy pare journée bi rek ci la ñuy jublu nee naa professeurs yi am ngeen problème parce que ca la ñu jëm yéen ñëpp di ngeen ko yëg moo tax def nañ fi mu ne euh, benn euh, kii groupe de journalistes formé nañ leen ba jox leen ay attestation mais am nañu des par exemple deux s ñëwuloon xam naa wax naa leen ko léegi foog ñu dugg parce que Afrique la sous région bi la bu ñu paree sous région bi Afrique lay doon buñ ñu paree continent yëpp lëkkaloo mu nekk parce que village planétaire la ñu nekk quand même euh, donc loolu mooy premier kii bi préalable mooy document de politique linguistique deuxième bi mooy cartographie linguistique cartographie aménagement bi euh, foog ñu def ko Saint-Louis rek lañ ko defagum léegi nag dañ ko war a def si région yëpp pour mun a réussir la MOHEB bi ci topp mooy les statistiques te loolu defe naa ñu nag ANSD ñu ngi ci mais dañ dañ ciy ànd ak euh, kii. SIMEN, système d'information du ministère, parce qu'on ne peut rien faire actuellement sans les technologies de l'information et de la communication pour nit ñi mën a dem mais loolu yëpp du yomb parce que yëf yi dafa yàgg euh, ñu def yëpp teg ko parce que sénégalais dafa am xam-xam dafa xarañ macha allah mais dañuy jël yëf yi bind ko teg ko di def ay recommencement loolu nag nee nañ nañ ci génn ministre nee nañ génn yëpp teg ko tey ministre dafa tey un peu que xamuloon ne lii yëpp am na donc lii c'était un Euh, journaliste yi di leen gërëm nag di leen sant parce que lii bu génnee fii yéen la du ñun ñun dañuy liggéey mais dañu soxla ku ñëw di ko génne moo tax léegi budget bi toujours dañ ci boole communication ngeen di comprendre nag léegi mu xaw a dëgër mais ñaanal leen ñu rek ci chantier ñu nekk yaakaar nañ na am solo li ci li ci kanam rawi lu bët. ce pays c'est le premier citoyen c'est le président Macky kooku kenn réerewu ko mbir man mi ko xam xam naa ne loolu rek la gëm toujours mu ngi wax langue langue. boo leen xoolee yéen ñi nekk ci presse bi nekk ci réseaux sociaux yi fu mu defee français rek def na fa wolof loolu nga wax dina ñëw xam nga lan mooy problème bi rek assemblée nationale boo fa demee traduction en six langues mu nga fa da ngay gis ku làkk pulaar ñu traduire que le làkk soninke ñu traduire parce que siis yi ñu nga fa mais amaguñ ko ci ki fii tey buñ ko amoon dañuy làkk siis yooyu mais amaguñ ko fa président di taxawit di wax amaguñ ko te c' est le français notre langue officielle loolu mu ngi si suñ constitution léegi kii wax na ko le CT1 e munu munuñu ko dindi te ñun nous sommes administratif ci biir administration lañ nekk euh, wolof bi léeg ñu utiliser ko parce que moom la ñëpp gën a comprendre mooy la langue véhiculaire mais amuñu ci droit sax parce que suñu langue officielle mooy le français nit nag boo nekk ci république da ngay tënku ci république bi li mu wax ak li muy def président man xam naa ne heure boo amee occasion làkk dafay làkk wolof dafay làkk pulaar parce que moom la nàmp moom la tàkkamti ko donc loolu daal dégg na séeréer parce que culturellement il est séeréer parce que ñun